saanul kaamil maanaam nit ku mat yar boobu nag dañ ko doon teg si ay méthode xëy na méthode yi bari na mbokk mi bu egg egsi xam naa moom dinañu expliquer méthode yooyu naka la composé mais itam Serigne Moustapha dafay wax ne maanaam appareil boo gis bu beesee bu ñu dafay àndax benn notice am wala mu àndax loo xam ne boo ko liiree ni nga xam naka la ñuy utiliser appareil bi mu ne nit nag dafa ne appareil boo xam ne maanaam mën nañu wax ne moo gën a sophistiqué si appareil mais notice bi daal jàpp nañ ne Seydina Mohamed moom xam na ko bu ko xamee tam am na mag ñu mu ko dee ba defe naa ne nu ñuy defaree nit ba crise yi ñuy wax nii yëpp dootu am ñoom am nañ si xalaat moo tax tey ñu invité woon sunu mbokk mi bëggoon rek am ay laaj mooy laaj yi ñu wax bëggoon xam mag ñooñu ñu wax mooy xam Serigne Touba la moo xam euh, Seydi El Hadji la moo xam mag ñi fi ne ñëpp te ñu xamee leen si wàllu mbaax xamee leen si wàllu yiw xamee leen si wàllu éducation ñu laaj ñoom nan lañ daan yare wéyjur yi école yi société bi ba si wàllu média ñoom naka lañ jàpp yooyu noonu ñu tudd te ñu jàpp ne ñoom ñoo war a yar naka la ñuy naka la ñuy yare xale bi ñu war a yar moom mooy kan xale bi est-ce que bour lañ koy jappé manam est-ce que c'est un roi du Toubab di wax wala est-ce que proie la est-ce que yaakaar la est-ce que inquiétude lay indi est-ce que projet collectif la yoyu question mom motax tax tay bi nga xamanteni bi mom lañ choisir moy enfant éducation ñu poser waat côté tey ci table seulement contexte bi dafa changer. mag ñi am na ñu daan yare

war nañu mën mucc ci problème éducation manam ñu am solution par rapport à la crise d'éducation bi nga xamante bi dafa poser aussi aduna bi en général mbokk mi ñu defal waxtaan wi nak sunu sëriñ la di sët si Seydi El Hadji Al Azhar bu de théologie jang aussi science coranique donc defé na ne wax si fi mu dañ koy jox plan dina expliquer ni traité thème bi ndax vraiment la kilifa la comité scientifique am confiance moom moo tax te ñu proposé ko mu defal ñu waxtaan kon su ko defee balaa ñuy sori ñu wax ko sëriñ bi bismillah te itam di ko wax ne euh, bég nañ si teewaayam ndax waxuma la fi mu bokk waxuma la fi mu jóge waaye itam disponibilité am surtout par rapport ak bépp activité surtout Mourchid TV bépp activité boo xam ne daayira bi mu koy def mu ngi siy dugal loxoom kon sëriñ bi bismillah. a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يستحق الحمد كله حمدا يليق بجمال نعمه سبحانه وتعالى وصلاة وسلاما على معلم البشرية جمعاء صاحب الختام المسك مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيوخنا الأجلاء وعلى جميع تلاميذهم وأسرتهم ومحبيهم السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشرفت بإلقاء بحث متواضع أمام سيادتكم والبحث يتناول عن حول التربية الطفولة أو الأطفال فإن الأولاد أو الأطفال فلذات أكبادنا وشغاف قلوبنا وقرة أعيننا وخير خلف لنا من بعدنا يحققون لنا ما نصبوا إليهم بقدر طاقتهم واستعدادهم ويأخذون عنا ما نريد أن يأخذوه منا إذا أحسنا إعدادهم وأخلصنا لله في تربيتهم وتنشئتهم على الخلق الفاضل والسلوك النبيل وفق المعايير وفق المعايير العلمية السليمة وهي المعايير التي أعارها الدين وبناها السلف فإذا أردنا أن نربي أطفالنا تربية صحيحة لا تشوبه الشوائب ولا تعتريها النزعات المريبة ولا تخالجها نزغات الشياطين من الإنس والجن ولا تلعب بها الأهواء من كل جنس فعلينا أن نستمد الهدى في ذلك من أهل المعرفة والخبرة والحكم بفنون التربية ودقائقها السليمة خاصة علماءنا الأجلة السنغاليين المحليين فإن تربية الأطفال مسؤولية ضخمة وتبعة من التبعات الثقال ينبغي علينا أن نستعين بالله مع التزود بالعلم والمعرفة والخبرة بفنون التربية ومقاصدها ووسائلها السليمة خوفا من الإطالة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله مكي ñi ngi am mbégte ak kontante di fas yéene dund li nga xamante ni yàgg nañ koo reeve mu di toog fii ci université bu tedd bii bu am crédibilité bi, bu nit ñi fonk lool nit ñi nag laa wax waxuma la ne nit di gërëm sheikh الذي أتاح لنا هذه الفرصة السانحة مري سني سرين المرشد العام مري الحاج محمد المصطفى سي ديكو خمني فيرتلا سكلا تي دومو سخنا سكلا تي سيتوان سكلا تي كونتنا واي سكلا تي ادونا te mu am ñaar yu jafe ci jamono kilifa incarné ko reinsursi jafe na trop muy valeur ak crédibilité lu jafe la ak tendance yi am yépp ci kilifa mu incarné ko ba reinsursi loolu yàlla ko ci yàlla gën a jàppale laaj boobu ñu laajoon al khalifa al am ayyadahu allah wa nasara suñu maam cheikh ahmed tidiane al maktum bi mu àggee sin Babacar waaye damay àggale laaj boobu ci sama bopp man li ma gën a yéem ci njabootu Moustapha Serigne Moustapha si ñaar moo ma si gën a yéem moo di ne seenu nite ak seen éducation te li tax mu yéem ma mooy dangay nekk ak nit ngeen di dund di dund ba mu xëy rek nekk mustarshidin weer rek. weer boo dajeeg moom da ngay gis lu muy dégager ci wàll niveau ay valeur yu muy incarné nga gis ni kii am na ak nite gu nekkaat ci moom te lu jafe la ci kilifa kilifa nag bu la bëggee jariñ dalay lay su la bëggee jariñoo day sànq sa nite moom nite googu yéem na ma lool ci moom te it ñun ñi nga xamante ni yàlla moo ñu nattoo ñi bëgg xam-xam mu jaral ñu ñu def ci suñu temps jaral ñu dëkk bu ne ñu dem si bu ñu sonnee ba sonn suñu ko gisee ci télévision mu di wax dañuy bég ndax dañuy xam ni mi ngi valoriser li ñuy wut xam nga kilifa gu ñëpp taxaw mu toog incarné xam-xam di waxe niveau bu élevé sóorul sax ndax comprendre ngeen wala comprendre ngeen kooku mi ngi encouragé kiy jàng di dalal xelam loolu fa tabarakallahu bu ko si yàlla fayee ñépp xaj nañ si tey nag ñu ñëw indi thème boo xam ne ni ko soxna si tedd si waxe bu am solo la mu di éducation boo xoolee thème bi dafa nekk xale am éducation am métode am sage xale dafay nekk koo xam ni dafay xaw a sensible dafay nekk koo xam dafay laaj ku ñu ñu tabax ko dafay nekk itamit koo xamante ni dafay laaj mu indi la résultat léegi nag noonu mu sensible moom xale ci ni mu amee ni mu sensible nga xamante ni naqari na pour composer ak moom nga fexe ba tabax ko boo ko tabaxee ba mu taxaw mu indi la résultat moo tax boo demee ci làngu arab ni ñuy tudde xale mu di ab tifl al walat al ibl te boo jëlee baatu tifl bi firi enfant boo xoolee lettre yi ko composé muy ta ak fa ak lam ci la baatu lutf jóge muy chey on latif mooy fragile gu xale bi ak nu mu sensible parce que fooy bi weex tàll ñu war la ko jox nga war see bind wala war see tabax lu jura résultat foy boobu pour mu taas ci say loxo pour mu naaw pour mu xotteeku pour nit tilimal ko dafay jafe mooy baatu lëpp mooy lu lu loo xamante ni léegi nag loolu ku am sagesse dëgg rek moo si mën a génn moo tax boo xoolee bi alquran wal yatalattaf wala yashara bi wal yatalattaf mooy fexeel ba li nga war a doone buñ ko xam moo tax boo demee ci mag ñi tudde xale gone na gone mooy ku ne mën na nekk bandi ëllëg mën na nekk président mën na lekk loolu mooy baatu tif mooy ku ne parce que li mu ëmb lépp feuille blanche bu weex la boo xamante ni li mu war a représenté bind nañ ko ci feuille mais seeni ci biir feuille bi doo ko mën a xam mooy baatu tifl bi lu lu composé wo ci taa ak faa ak laam dafay wane ni lii rëy na rëy goo xamante ni pour nga gëstu ko xam ko jafe na motax bo demé ci ayé bu tedd bo fi alquran di wax nan la tudriku al absaar wa huwa yudriku absaar nu mu tëjee aaya bi wa huwa latiful khabir parce que bo xolé ayé bi ñaar la ken mënu ko pek mom yàlla ta man na pek lépp légui mom yàlla man na pek lépp parce que khabir la al khibra bo amé expérience dara du la réer léegi moom yàlla ken mënu ko xam lutax latif la kon la tudriku tudrikul absaar latif وهو يدرك أبصار خبير كون خام دي باتو خبره موي اكسبيريانس مو مانا دوغ سي طفل بي با ديف سي ليمو بيغ بو نيوي سي مو الابن يفري دوم خالد ني نيب خام ناني تبخ موي البناء موي في المبنى موي فري كوم لي ني توغ ني موي ايموبل لي nga tabax keur go xamni ku fa bu dee taw doo tooy am nga sécurité yaa ngi nekk ci sa jàmm kooku al mab naa tabax boobu ki ko war a tabax war na am expérience bu rëy architecte bi architecte bi war ki ki nga xamante ne mooy rëdd plan mu handis bi war na koo rëdd rëdd bu rafet mais ki koy fondement di ko tabax muy maçon bi war na koo tabax ci façon boo xam ne ñëpp dañuy kii kon xale pour mu nekk mab naa pour mu nekk kër walla réew wala famille boo xam ne ku si dugg am li nga bëgg yépp dafa laaj ni tabax ko muy baatu ibna bu ñëwee ci alwalad te te ñetti baat yi ma wax bu seen alxuraan indi na ko alwalad li firi enfant xale boo boo juutalee baat bi li ñuy wax taakiis ci ahlu balaaga mu jox la dillu dillu mooy firi baat xam ngeen baat mooy teen soo ko dee root loolu ngay dugal ci biir pour mu indi la ndox mooy dilwu léegi sa doom pour nga mën a fexe mu dafay nekk baag nga yebal ko ci teen bi mu indi la ndox est-ce que war na bënn parce que dilwu boobu di baag bi bu bënnee ndox mi day senn façon bi nga ko war a defaree na nekk boo xam ne bu àggee dina tëmb ci ndox mi kon xale bi war nga koo yar ba bu génnee dem école indi la résultat note yu baax bu génnee dem daayira indi la jikko ju baax su génnee dem gàmm wala màggal roy fa lu baax ñëw su génnee dem bitim réew du changé mooy baatu dillu kon loolu am solo la boo ñëwee ci tarbiya bi firi éducation boo xoolee àdduna yépp pour lépp mën a dox wala lépp mën a réussir fokk éducation am ba si ñi nga xamante ni dañ ay économistes lañ bu ndee redresser société balaa ñuy dem ci wàllu koom-koom dañuy fexe ba defar éducation ba pare kon lépp su doxee lépp bu baax milliards yi bari infrastructure lépp baax te éducation amul dañ koy pasar pasaree mi ngi mel ni sa doom soo ko bàyyilee sa compte ay milliards tabaxal ko ay immeuble te defoo ci moom éducation nga génn àdduna cinq soo dekkiwaatee da ngay luye ji lépp dina ko pasar pasaree mais soo ko tabaxee nag moom xale bi yar ko def ci moom baatu tarbiya éducation nga génn àdduna bàyyiloo ko dala cinq boo boo waatee mu dugal la foo dëkk moo tax boo xoolee moowu tarbiya dafa am lu ñuy wax muraatu nadiri fi l ibara mooy sens ni muy amee sens moo bi koy incarné bi lay wan mbir mi moo boobu dafa war a taxaw taxawaay boobu xam nga éducation da ngay gis ni éducation il faut mu am lu ñuy wax kilifa éducation bi njëkk si nit mooy mu am kilifa moo tax boo xootee baatu tarbiya muy raa ak baa bi nga xamante ni moo composé wu gis nga kilifa ba rabbu boo demee faate alhamdulilahi rabbil alamin moo tax réew sax pour mu am stable dafa mu am benn président kër gi foog mu am benn kilifa nit ki pour mu mën a am jàmm foog mu am benn yàlla gis nga baatu rabb léegi éducation pour mu mën a dox foog li ñuy wax ndóol ñu fexe ba xeex ko am lu ñu dunde bu dund amul rek agression yi bari moo tax baatu xont bi fii alimentation li ñu war a dunde génn raa ak baa muy burru ñi ñuy jàng fiq si téere fiq yi boo demee ci xalil baatu burru gis nga balee génn gu raa ak baa boo xoolee itamit pour nit ki am éducation baax muy mbaax ci raa ak baa lay dem muy albirru bi nga xamante ni jamaat kalimatun jamaat jamia anwail xayraat boo ñëwee ci li ñuy wax mën manhaj muy méthode parce que xale ci ni mu nekkee xale xamul dara nga war a bëgg mu gën ëllëg kooku méthode bi daf si am solo ndax mbir mën na am solo fa jëm di am solo mais jaaruwaay bi yàqu ko nga ñëw ci baatu xikma bi firi sage alxakim alxukama kon nga xam ni xale pour mu nga mën see génn dëgg dëgg dëgg foog nga am benn sagesse bu mat sëkk motax bo xolé suñu mag ñi ñi fi nekkon nga xamne ay yar kat lañu won da ngay gis ni ñom du yar biñu yar xale bi du question xam-xam kessé mais dafa am ben hikma ben sagesse bo xamanteni mo nekkon ci ñom tax ñi man see yar xale bi xam nga tay bo jëlé ku melni ni Seydi malik radiyallahu taala anhu mu meuna jël xale bo xamni juddu judduwaalewul ay bët fexe ba mokkal alquran fexe ba xam waxtu yu juróom fexe bay lal di jàngale kooku xikma muy sases rek moo ko man moo tax luqumaan mi nga xamante ni moom ci wàllu éducation daf see def lu rëy rëy ba yàlla ne yonent bi jëlal jëlal si moom référence nuñ ko doon askane luqumaanul xakim moo tax ñun suñu mag ñu ne am ñoom duñu won ay boroomi xam-xam nii rek xam-xam boo xam ne ay livre la jóge mais xam-xamu yàlla lañu amoon dañuy jàkkaarloo yow xam li nekk sa xol ak yépp léegi nag thème bi ci ni niñ koy doxale moo di ne xale boo ko dee yar fan ngay commencer parce que lépp looy def foog mu am fondement base bu dëgër léegi ci ni ma indee méttitu thème bi mooy dinaa wax xale bi war a yar xale bi nga xam ne moom la ñu bëgg ëllëg mu mel ko arranger réew mi arranger société bi xale boobu yaa ngi koy commencé si avant muy juddu ba bi nga yaakaaree ni sosu na ba bi mu juddoo nga topp ko noonu ci noonu laa koy toppee ànd ci itamit nag ci suñu mag ñu tedd ñi li ñuy wax nga xamante ni ñoom seen lépp dafa yàllaaye ba noppi set point bi ci njëkk mooy al inayatu bi tifl qabla wujudihi mooy yaa ngi yar xale bi bi nga bëgg lu njëkk muy judd xam nga lu tax loolu mooy dafa am lu ñuy wax al mahiya wal wujudiya mooy lu abstrait ak lu concret aduna lépp looy defar lu concret loo xam da nga bëgg def ko ñépp naw ko foog mu jiit foog mu jiitu si maahiya par exemple mooy lan mooy immeuble bi boo ko bëggee tabax balaa ngay tabax immeuble bi nit ñi di ko gis foog architecte bi teg ko génneel la plan bi ba dessiné la ko ba nga gis immeuble bi ci ci maahiye bi ci ci lu lu ab ba nga xool ko ne ah kër gi de bu rafetee bëgg naa see jënd kon yow defar nga kër gi ba pare lu njëkk nga di ko tabaxal kon xale bi nga bëgg mu mel noonu ëllëg balaa ngay balaa ngay bàyyi ba ba ba màgg nga di ko defar parce que xam nga kër boo ko xasee tabax ba pare par exemple nga tabax ko ci ñaari nek legui nag nga bëgg tay mu nek juroomi nek nekkat air plus nangam ngay tojaat ak modifier da ngay dem ba day muju yaq kon xalé bi nga bëgg bala nga koy tabax yow war nga nek architecte bo xam war nga tek ni man xalé bi la soxla motax bo xolé alquran da ngay gis ci yonent da ngay gis koy ñaan ne yow yalla yalla nak mu may dom juma donno legui xalé bi avant muy juddu ci ngay tek sa plan ni man xale bu mel nii laa bëgg loolu nag boo xoolee suñu mag ñi ñoom noonu lañ daan doxe boo xoolee mag ñu njëkk ña daawuñu ñaan jëkkër dañ naan la ñaanal ma ma am doom ju baax parce que jàpp nañ ni doom ju baax yow ku jigéen gi nga baax sa jëkkër baax moo la koy mën a may ba boo xoolee suñu maam maam faa wàdd wele radiallahu taala anha ca ba muy yóbbante ña doon ziyaara ji chamar fuuti joxe àddee bu réy boobu lan la wax nee ko mu ñaanal ma doom ju baax kon ndeke moom mi ngi koy préparé lu njëkk muy judd te boobu amagul sax boroom kër léegi lan la ko Cheikh Omar Fouti wax dane ko dinaa ko ñaanal mais dina am góor gu yiw gu fay ñëw qualité nangam ak nangam la yor na ngeen ko ko may kon Cheikh Omar Fouti xam na Seydi Hadji Malick mi ko war a représenté ba wutal na ko plan ko jàngat ba gis ci moom yiw gi lañ ko may soxna si Cheikh Omar yooyu moom ba mu dajanteeg maam jaara bu sa way juru borom Touba radiallahu taala anhum ajmain lan la ko wax ñaanal ma am doom ju yiw mu ne ko da nga dajanteeg góor gu yiw mu jur ko muy papaay Serigne Touba radiallahu taala anhu kon ndekete pour nga am xale bu baax yaa ngi koy préparé ci ñaari waajur tànnal ko ñaari waajur léegi ñaari waajur yooyu nga koy tàndal li ëpp solo ci ñoom pour ñu mën a jur lu baax moom la ñuy wax assalaaxiya mooy yiw yiw mooy baat boo xam ni lë ëmb na lépp su ne nit yiw na rek mooy jeex na lépp baax a ngi ci moom yiwa dina rek tax ba yonent bi salaa sallam di wax naan soxna si gën ci àdduna mooy almara lu mu ko attribution saaliha moo tax yiw googu da ngay dégg sax ñu naan la ah sa waay yow tey yiw nga de yow da tey kër goo dugg ñu may la jabar kon ndekete mag ñi ñoom bu daan may jabar dañuy seet ku yiw ñu may la jabar nga seet soxna su yiw ñu may ko jëkkër parce que ñoom xoolatuñ sëy bi mais doom ji si juddoo la ñuy xool ëllëg léegi yiw googu dafa am benn effet bu muy def ci xale bi ma jox leen si benn exemple xadir ak Moussa bi ñu àndee xadir ànd ak Moussa ne ko jàppale ma ñu yëkkati miir bi kii di yonant kii ñu ni lépp la ak attribution yiñ ko jox yépp ci yiw buñ demee ba di di di tabaxal xale ab miir mu mel ni dañ ko laaj koos bi lu tax mu ne wa kaana abuhuma saalihan muy assalaahiya yiw kon ndekete yiw gi seen wayjur yu yiw moo tax mu ñu mën a am loola nit tamit dina yiwadi dina yiwadi ba toll foo xam ni société euh, bu ñu bëggee yar bu baax dañoo war a fexe ba bu ñu àgg ci benn degré yi ndax bu ñu fa xasee ba àgg mënatuñoo jur ko yiw ni ngay xoole ci wàllu santé nga gis ni que dañ naa la ku góor ki ak ku jigéen ki bu ñu amee feebar nangam bu ñu sëyee force doom ji da koy am léegi baatu feebar nag dina nekk physique dina nekk lu loo xamante ni lu abstrait wàllu moral comme li alquran di wax naan al marad gis am alquran fi muy indee baatu marat ci ne euh, jigéen gi boo dee wax ak moom am am am na nu muy nu muy joxele kàddam mu jox la feebar feebar boobu du feebaru physique mais feebaru moral la léegi feebaru moral nag société bu ñu demee ba am crise boobu crise feebar crise euh, euh, valeur bu ñu demee ba am ko àgg ci li ñuy wax daraja yiwadi su boobaa mënatuñoo jur lu baax preuve bi mooy suñu maam Nuux alayhi salaam bi société am demee ba toll ci yiwadi foo xam ne jombatuñu dara sàngara ñi naan yàmbaa ñu tux wor rayante sàcc ku ëpp doole def sa ba société bi yàq dafa ne yow yàlla solution bi mooy ñii mënatuñoo jur ku baax fokk nga jële leen fi ñu wut ñeneen gis nga rabbi laa tadar ala min al kayfi ndaya innaka in tadarahum gis nga yudillu ibadak mais li ma si intéressé mooy wala yalidu illa fajiran boo xoolee baatu wala yalidu ñoom toll nañ ci yiwa di foo xam ni dootuñu jur illa fajiran lu dul ab kàccoor te al moy diddu salahiya yiw ak kat ak yiwadi léegi lutax mun dotu ñu jurati dul fajir bo xolé aya bobu dafa melni dafa am contradiction ak kullu mawlun yurid ala fitra kullu mawlun yurid ala fitra legi fitra ilahiya bobu fako ko yàlla di jaarale koku da fay am li wax silaaxiya ak yiw gu ma sëkk mais nit ki na dina ag ci ak katchor ak yiwadi ci degeere fo xamanteni lu bax mënatul jaar ci mom ma jox la ci ben exemple tey machine machine bii wal nga xamante ni par exemple boo si dugalee gerte wala dugub mu walal la ko defal la ko sungu bu set wecc machine boobu bu amul salaax yi ak yiw huile bi jaxasoo mu xumaat manqué boo fa dugalee boo fa dugalee euh, dugub bi bu la ko walalee pare dina am ay ay yàqu boo ko lekkee sa man ngaa dee parce que machine bi dafa yiwatul comme yiwatul nag mënatu la indi résiltat bu yiw léegi nit ki nag su bonee ba bon a bon lu muy jur day bon fi ni bi njëkk mooy ñun ñi wara jur ëlëk fokk ñu fexé ba yenn jikko yi indi indiwaat ko motax bo gisé mag ñi daan dox ci loolu loolu nak yang koy amé bi ci ñëk moy li wax lek lu lew lek lu dagan di sol dagan parce que bo xolé dom dom ju baax dañ koy ñaan bo gisé alquran mag ñi dañ daan ñaan dom ju baax ta ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena li tax mu nangu mooy li nga lek lew li nga naan lew li nga sol lew moo tax mag ñi nag seen lekk ak seen naan yépp dañ daan bëgg mu lew pour ñu mën a am doom ju baax dinaa la si jox ñaari exemple benn bi Seydi Hadji benn bi maam Borom Touba radiyallahu taala anhu Serigne Touba dafa woor ba ngoon dog amagul li may wax nii euh, sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke loo ñoo doon jàngoro Égypte moom moo ko nettali nee na sëriñam moo ko nettali parce que pour nga gis yenn euh, méthode mag ñi si éducation pour ñu bind ko oral lay doon mais man moo ma ko nettali Égypte te moom boobu mu nga doon jàngal Nahjul Qada bu Serigne Touba moo ma nettali lii nee na bi dog jotee euh, amuñu lu ñu ndogoo taalibe bi daal di génn dem rëbb naat ba jàpp ko xam ngeen naat ak ni mu seere bi mu ñëwee Serigne Touba ne ko foo jëlee lii mu ne ko dama koo rëbb mu ne ko noo ko rëbbe mu ne ko dama leen a nax stratégie la dama teg fiir gi bañ ñëw mel ni ko jàpp ma jël leen mu ne ko sam mbokk mbindeef nga nax ko war koo lekk man doy na mu ne ko mais bi ak koor gi nii foog nga lekk mu ne ko damaa bëgg doom yu baax ëllëg loolu la ko Serigne Touba tontu daan na ko nañ jël xobu garab yi tucc tuccal ko ñu lekk ko naan ndax wóorul ci boo lekkee euh, guddi gi nga fanaanooye lu lewul nga am sa rapport ak sa soxna mënu yu ba jóge foofu ju am fa doom day daal di doy waar moo tax yenn saa nga gis koo xam day am xale amagul yenn âge yi di sàcc yenn somm yi moo tax da ngay xool sax ki nga xamante ni dan naan kii alalam lewul ak lewul da ngay gis doom yi di ko sàcc loo xam ne da ma déedéet dañuy teg dil yoo xam te ci wàllu sàcc da day yéem yow mais alors que bu dee alalu sàcc nga takkee soxna si tabax si kër gi di si joxe dépense pour xale bi mën a sàcc day yomb moo tax seetlu li ma la wax rek ku ñuy jiiñ alal ju léwul ak léwul rek njabootam ñu ngi koy sàcc ñu ngi teg ay dil yu garaaw loolu lu jar a bàyyi xel la maam bu doon tuwaane ko damaa bëgg doom yi yiw ëllëg kon ndekete moom mi ngi préparé ay doomam pour lekk lu lew beneen bi Seydi Hadji Maalik la ak suñu maam Tafsir Ahmed Baron Njegéen bu Thiès Euh, moom mag la woon mage woon na Seydi Hadj Malick lu toll ci defe naa 10 ans mais daf ko bëggoon na sopp ko Seydi Hadj Malick dafa mës a ñëw Thiès seet si ko mu ne ko ñu ànd ci sama benn taaliba buy jaay ay ndima ndima mooy tisi ci olof ay yére bu doon ci jamono da nga naan ay jasneer bi ñu àndee mu ne ko ah kii kat sama sama sëriñ la sama rakk la waaye sama sëriñ ndax dama ko sopp muy Seydi Hadj Malick dama bëgg nga xottu ñu ay yére ñun ñaar ñu nuróole ko par exemple ñaata mètre mu ne ko 7 mètre mën tam mu xot léegi taalibe bi xottil ku si nekk du douze mètres kon xam nga ëpp na bi ñu agsee ñi daal koy làqar ñi gis ne ëpp na ñoom ñaar ñi àndaat la ëpp ñi dem si jaaykat bi jox ko ko ne ko dangaa juum jaaykat bi ne leen ma de comme damaa xam ni yow sëñ Ahmed Baro yaay sama sëriñ nga ànd ak Seydi maa Malick présenté gu ma jàpp comme sëriñ ma bëgg a joxe waale sama àddina ma bañ leen ko wax nag muy nur a ngistal ñu ni ko ñoom kat dafa am mission bu ñuy dox am ku ñu leen war a remplacer ëllëg moo tax sañu ñoo def lu lewul kon ndekete malbas yére bi ñu sol waaw moo tax boo xoolee doom ju baax da naan zurriya tayiba ak ci alquran kulu mi ma razaqna min min tayibaati ma razaqnakum kon zurriyatan tayiba min tayibaati ma razaqnakum loolu tamit dafa nekk loo xamanteni lu jar di di di di bàyyi xel la fa tabaarakallah boo gisee Seydi Hadji malik radiallahu taala anhu daawul lekk yàpp du naan soow bi ñu ko ko laajee mu ni day bañ xar mi bu ko lekkee est-ce que lekkul yëfi jàmbur wala soow mi mu naan est que naanul sa kiyam mais moom taxatul parce que na muy mel mel na ko ba pare mais dafay préparer ëllëgam moo tax mas naa déglu ci xaafis wele mu ni góor gi Seydi wele yal yàlla dokk leeram moo ko nettali ci histoire Seydi Hadj Malick ci Serigne Babacar nee na bi mu gënisee àdduna moom Serigne Babacar si Seydi Hadj Malick dafa yónni ay mag ne ko dem leen ngeen xoolal ma soxna si ñëw na indi na gan bu ñëwee xool ko ne ko Maodo ah kii mooy Babacar mi ngi ñu doon ñaan loo mu ni mu wóorul de waaye bu guddee fan ngeen xam ko mais li ma soxla foofu mooy kon ndekete ñoom préparé nañ ko avant muy juddu waaw maanaam bâtiment bala nga koo tabax da ngay woo architecte bi ngeen defar plan bi ba nga gis plan bi ba pare doo ko jublu si nag mu jëmm kon sa doom ji nga war a jur da ngaa war a toog ba nga xalaat si circonstance bi nga toll tey bu dee da ngaa nekk xamante ni yow sa mission. muñ rek mooy tax mu jàll war ngaa mën a toog xalaat comme architecte teg sa feuille di xool doom ju mën a muñ fan laay jaar ba am ko boo demee ba lijjanti ko nag wuti soxnaam dem takk ko bu dee yow sa mission xam-xam kese moo ko mën a doxal war ngaa toog xaar xalaat ne man doom ji war a am xam-xam ban plan laay jër nga teg plan bi doo ko dem nag wuti kii bi noonu la mag ñi daan doxale moo tax ñi daan réussir moo tax ñoom seeni doom dañuy judd rek tegu su njub duñ mën def lu bon bu ko defee daf lay jaaxal parce que fa ñu la Cheikh Alxaaji Abdes Dabba nettali nañ nee nañu bi mu nekkee xale ay cinq ans six ans boo ko masaan bett ne ko waañ wi kat cere jan fa tegoon yaa ko lekk day crise waaw ba dégg naa bi ñu ko waxee sëñ Babacar dani bu leen bu leen bu leen ñu rayal suñu cuux si maanaam bu leen ñu rayal suñu caat mi bàyyi leen li ngeen koy wax xamu ko gis nga xale bu am cinq ans boo ko jiiñee lu mu deful mu crise léegi xale bu am cinq ans di teg dil di sàcc pa oori papaam a ooro yaa ngi dégg nga xam ni kon ci dil lañ ko tege hmm? waaw si des mooy itamit li ñuy wax aadaabul jimaa mooy boo waree préparer sa doom comme architecte bi bu toogee di préparer immeuble bi mu soxla li ñuy wax tegginu sëy tegginu sëy dafay jouer ci doom ji moo tax boo gisee mag ñi euh, ci buñ daan nekk ak seen soxna du du fu leen fekk lañuy la nekk ak moom danañu yor njàpp bëccëg bi danañu si neexal soxna si may ko kado fexe ba bëccëg boobu leen fexe ba environnement kër gi nekk environnement boo xamante ni day neex jàmm am kaf am bu ko defee nga jàpp mosulu ci seytaane parce que yonent bi salaa salaam nee na doom bu dee judd seytaane dafa am lu mu si laal nga fexe ba protéger wu ci loolu léegi nag loolu li tax mu am solo mooy xam nga li ñuy wax l' environnement qui détermine l'homme dafa naan noonu la ko tubaab di waxee environnement dafay jouer ci nit ki léegi nag ni muy jouer ci nit ki ci bi fi nit ki nekkee ak ni ngay jouer nit ni muy jouer ci nit ki booy préparer nit ki tamit booy préparer doom ju baax environnement bi nga koy préparer mu war faa sosu dafa war nekk environnement boo xam ni seytaane dégagé na fa nga musulu ci moom mu nekk environnement boo xam te ni lislaam dafay am cër mooy nga jàpp soxna si jàpp mu nekk environnement boo xam te ni kaf ak reetaan la béggalante parce que ndox mi nga xamante ni moo war a jur doom ji bu dee génn pour war a jur doom dafa war a génn ci mbégte ak bànneex gis nga tey nit ki su su su su yaramam tàngee ba tàng su dee jooy rongañ yi day day tàng su xolam seddee ba sedd bu dee jooy rongañ yi day sedd yaa ngi dégg léegi nag noonu nga koy misaale ci rongañ noonu ci ndox mi nga xam ne moo war a jur bu tàngee ba mer ndox mi génn tàng bu fa doom sosoo am na yenn jikko yoo xam ne mën na def effet ci moom foofu tamit mag ñi dem si daan bàyyi xel bu baax a baax ak tamit soxna si fexe ba bu dee am ak jëkkëram ñu war a séq dara mu am nu mu mel ci taaru ci defaru ci lépp parce que nit ki nu mu gën a kontaane doom xam nga doom ji soso ci environnement kontaan bég bànneex mbëggeel doom jooju mën na am solo torop moo tax suñu maam sëriñ Fàllu Mbàkke radiallahu taala anhu euh, bu daan mayee soxna dafay laaj ndax ku góor ki jàng na bu nee déedéet mu ni man daal man daal ku àndul ak xelam wóoluwuma ko ci wóoluwuma ko ci soxla ci soxna ñi laaj ko lu tax mu ni ndax ku jàngul euh, li war ci jigéen du ko xam waaw moo tax jox ko ko mën na koo yàq mu ngi mel ni ku jàngul chauffeur nga jox ko oto te it ngay tudd yàlla moo tax boo xoolee mag ñi guddi gi yépp lu mu dee dee di ngeen ci naafila di ngeen ci jàng alxuraan di ngeen ci zikkar lépp pour préparer xale bi ñu yar ëllëg bi si des itamit mooy xale bi war a sosu dafa war a sosu ci sutura xam nga léegi da gis xale boo xamante ni dañuy ñàkk kersa ñu baal ma ci wax bi dangaam ñime bët léegi yow bu dee ci ñàkk dang dangaam ñi ma bët ci environnement boobu environnement dangiral ci nga sosoo dangiral daf lay yomb parce que parce nga nga war a séq ak sa soxna ci néeg boo xamante ni yow benn néeg nga yor yor téeméeri doom yàlla boo yor ñaari jabar si benn néeg booy booy kii di xool di catal kii ndax war naa nelaw léegi loolu bu fa xale juddoo ndax dafa mel ni yow yow bi ngay séeg soxna yaa ngi génnewu bon wër na ne environnement bi laaju ko moo tax xale bu fa juddoo du mën a am ci du mën a am yenn jikko yu day ñàkk kees daf koy yomb moo tax boo xoolee mag ñi bu njëkk seen néeg ak seen néegi soxna dafa daan soreyante tey bu jugee néegam di dem néeg sa day tox lu yàgg yàgg waaw néeg xale yi tamit ak néeg mag bi ak néeg soxna yi dafay am différence bu baree bari waaw bu guddi ba ñëpp tëdd nga muur ko waaye léegi li xew léegi gis nga ko bala nga am ak sa soxna kii taal làmp bi ah, bu ko defee soxna si di jaay jonge gu xaay hmm? télé bi bul xam keneen mën na koo yëg yooyu yëpp dafay tabaarakallah beneen point bi mooy al inaaya bil janin fii ruxumi ummi mooy nga préparé xale bi bi nga demee ba gis ni mu ngi ci biiru yaayam nga jàpp ni nga soxna si wann na lor su boobaa foofu dangay ngay préparé comme préparé nga ko ba yaakaar mu ngi jóg léegi nag danga koy préparé terrain bu mu war a wàcc mi ngi mel ni rek nit ki téléphoné la ne dama dama war a ñëw si suba ngay defar kër gi defaraat yëpp pour mu mën a ñëw ci environnement boo xam ne nga am yaakaar ci moom foofu nag dafay am lu war soxna si ci bu demee ba yëg ni ëmb na li ko war mooy mu fexe ba góor góorlu ci yenn jikko yi nga xamante ni dañ koy xeeba nit jamono bi mu ëmbee mu fexe ba moytandiku ko ndax jamono bi nga ëmbee lépp loo xamante ni yaa ngi koy def naka sudul noonu mën na dem a dem ba wàll xale bi defe naa mas ngeen koo seetaan ci benn théâtre ci kooku ëmboon di dem di sàcc ay xorom di sàcc ay cinu jàmbur di ñaanaatu di nangam doom ji juddu di rawoon rek loo teg mu jël ba mag ñi di ko waxtaan naan ah yaay jëkkër bi mu ko ëmbee xorom loo teg mu sàcc ba buy ñëw ñi ko nëbb xam nga waaw moo tax mag ñi buñ demee ba seen soxna wann lor su boobaa dafa am éducation bi ñu bëgg soxna si si doom ji ci soxna si lañ koy def bul waxeeti nii ku ëmb du tooge nii waxtu tel ku ëmb du ko dox hmm? heure tel ku ëmb du ko dox gis nga li ñuy wax jigée di jigéen di bi ñu nekkee xale di jàng ah, dañoo mas di dàq kañe temps naan naan dëbb kañe dañ koy lekk ñuy dàq kañe ba kañe gi dugg si pax mi léegi nag ñi koy ruux pour mu génn benn meer boo xamante ni dafa dafa ëmboon ñëw di ñu ko ruuxle legi bi kaña gi genné rek xulli badi rek mère bi daw mais dom jëm sa am bu la xolé comme kaña legi na mère bi daf doon wax naan kaña gi moma jigéri waaw waaw ah da ngay dégg mu naan ah kaña gi kat moma jigéri wala da ngay dégg ko xam da fay ëmb nga ñëw nga ñëw tital ko xullu mu ni ay yow man dama jëlé sama dom ji yalla boma jigéri kon ñi kon mag ñi ñi ngi lay xamal kan ni dom ji war nga fexé ba ki ko parce que amna na benn góor go xamanteni muqaddamu sayyid haji Maalik wa radiyallahu taala anhu ñu koy wax sen sulayman jaykar ahli daf daan wax ni fo bañul sa dom nuru fa bu fa jël soxna ko bañul sa dom nuru ko soro lako ak bu sa soxna ëmbé wa sayyid haji Maalik moko ko yar dégg nga wax bu daan wax fo bañul sa dom nuru fa bu fa jël soxna ko bañul sa dom nuru ko sore lako ak sa soxna ci bu ëmbé kon bu ëmbee soxna si li ko war mooy mu fexe ba sàmm yooyu yëpp ku jigéen ku góor ki tamit dafa am lu ko war moom itam li ko war moo di ne na fexe ba yenn yenn yëf yëf yi nga xamante ni ay jëf yu physique la mu fexe ba di ko si jàppale te di ko defar di defar moralam parce que boo xasee ëmb dafa am ab tàngal buy nekk ci yow léegi nag bu ñu la dee minimiser di la ñàkkal fayda di la xoññutal ngay dund ci souffrance ba jur si doom doom ji mën na màgg rek nekk ku ku agressif waaw kon tamit góor gi war na bàyyi foofu xel moo tax so euh, mag ñi bu seen soxna masaana wala wann lor daanaka mooy doon buuru kër gi waaw saa yu xëy am luñ bind jox ko mu naan loolu ñuy bind jox ko mu naan dëgg la ñaan la mais ñu ngi koy defar moralement parce que ñi ngi koy ñi ngi koy wanne ko ñi ngi lay suivre ñi ngi lay nangam te ku jigéen ki na fexe ba am na yenn bruit yi yenn son yoo xam ne boo ëmbee da ko war a moytandiku parce que yàlla ni mu bind nit xale bu nekkee ci biiru yaayam wala bu juddoo li muy njëkk a li muy njëkk a xàmmee ci moom mooy dégg-dégg waaw moo tax sax xale tey yaay ji bu ko rombee pour mu xàmmee jëmmu yaay ji waxu yaay ji lay njëkk xàmmee moo tax ci aaya alquran boobu wallah axrajakum min butuni ummahaatikum laa ta'lamuuna shay'an wa jaala lakum as-sam'a waaw même su dee génn àdduna itamit dégg mooy mujj si moom day dem ba bu xoolee dootul xàmmee boo kaataa dootul yëg mais boo rombee boo defee benn bruit mu dégg ko léegi nag dégg-dégg boobu luy formé ci xale bi liy njëkk a ci moom mu koy comprendre jëm ci kaw suuf mooy dégg-dégg xam nga tey kër boo fa doon dugg par exemple tey ku doon dugg si fii balaa muy gis jigéen ñee góor ñi balaa mu leen di gis leen xàmme son yi lay njëkk a dégg gis nga as-samaa waaw comme na kon biiru yaam bu fa nekkee li muy njëkk recevoir ci àdduna mooy ay son am na son yax xam bu ko njëkkee recevoir rek baaxul ci moom waaw foofu moo tax foofu euh, bu xale bi ne cupp rek ñun la noddal fii liqaamal fii te nodd ak liqaam ay son la yoo xam te mu njëkk ko recevoir moom kooku mujj di si bàyyi xel bu baax bi si des itamit moo di ne xale bi su demee ba judd nga xam ne léegi judd na léegi jamono bi xale bi juddoo nga xam ne léegi wàcc na léegi loxo yi ko war a njëkk recevoir dafa war a nekk lu set li ñuy wax sage-femme mag ñi daan ko tudde rewle bu njëkk boo demee ci dëkk yi dëkk mag ñi ñu daan yare ñaari nit ñaari nit yi ku leen daan gën a yiw gën leen a jàmbure gën leen a baax gën leen am secret gën leen a dund lu lew ñaar ñi la daan doon kii rewle mooy kii assisté kuy kuy juddu ak kii sang néew dañ daan nekk nit ñoo xam ñu crédible lañ dañ leen daan sax yóbbu ci li ñuy wax daraja taqdisiya dañ leen daan màggal parce que xale buy doog a judd dafay indi leeru yàlla ak leeru yëpp waaw ah, mi ngi mel ni rek feuille buy bees nii buy doog a ñëw loxo bu ko njëkk laal mën na koo tension te it xale biy doog a juddu ki ko njëkk a recevoir foog mu am lu mu jël ci moom xam nga da dégg sa ñaan la waa yow yow yaa bëri wax xanaa sa jour ngente nangam gis nga ci waaye yow xanaa nangam xanaa sa jour ngente nangam parce que jour ngente bi jàpp nañu ci lay recevoir yenn kii yu bare bëri moo tax boo xoolee euh, ma nettali si benn xissa cheikh al islam Baye Niass radiallahu taala anhu jour bi nga xamante ni moom la juddoo nga xam ne dafa juddu rek euh, ñu ñëw ne maam abdallah baay bi ah soxna si kat am na doom léegi ndax bu njëkk mag ñi soxna si bu masaan am doom bala koo kenn tiim bala koo kenn tiim ñoom ñoo koy tiim ba pare ba da ngay gis sax seen soxna buy buy am doom dañuy toog si buntu néeg bu naan doom ju juddu na ñoo ñoo koy njëkkalante tiim ko ndax jàpp nañu ak leer gu ñu am war koo kii bi ñu ko waxee ne ko Baye Niass judd na fekk na booba Baye Abdallah Baye Baye Niass mi ngi téel benn taalibeem muy tare alquran war a tare bàqara ba naas bi mu naan minal jinnati wa naas ñu ñëw ne ko ah Baye Niass judd na xam nga lan la wax dafa ne ko yow mii doog a tari bala ngaa wax kenn li nga tari si kaamil dama nga tifli ma ko sama doom jee